asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk ñu bokk yàlla kii seen soppali ci yàlla Abdul Ahad moo desiwaat di leen nuyu di leen ziyaar di leen tatagal di leen baalu xaq di leen baal xaq di ñaan yàlla boole ñu jégal eh, bokk ñu bokk yàlla mu mel ni tey al yawma yawmul arbaa i tey bisab àllarba la di mercredi cinq rabiul awal juróomi fan ci weeru gàmm wi ñu nekk ci ñi nga xam ne loolu lañ jàpp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 milaadi isa ci juddu seydina isa alayhi salaam euh, bu dee ci weeru biir yi tey mooy ñaari fan ci e, satumbar mooy juróom ñaari fan ci satumbar mooy juróom ñaari fan ci satumbar kon satumbar bi ci weeru biir yi di weeri taw yi néew di am na tey juróom ñaari fan bokk ñu bokk yàlla juróomi fan dafa bokk ci limi fatt yi kon ñi am juróomi fan tey alarba ji rafetu ci ñoom kon ñoom mënuñ cee def dara waaye ñu am ñeent fan ñoom rafet na ci ñoom eh, àllarba ju jot nag dañ cey tere tere wattandiku ku ci fóot wala ku ci sangu eh, wala ku ci tàggoo ngoog duwaawul yowm allahuma eh, inni asaluka adarajat adarajati lula min aljanna allahuma inni asaluka darajatil ula min al janna yow yàlla maa ngi lay ñaan eh, daraja ju kawe ci ajjana ñaan gi jaaroon na fi ban indi ci ay waxtaan yu bëree bëri ba wax fa si mi ngi xam ne moo dàq ci ajjana yi waaye illiyin gën caa kawe ajjana yi yëpp ay firdawsi lañ waaye dafa am boo xam ne moom moom la ñuy wax firdawsi illiyin moo dàq ci ajjana yi moom nag la yonent saa salaam di ñaan suñ borom tabaraka wa taala ne allahuma inni asaluka al eh, inni asaluka adarajat darajatil ula ay daraja yu kawe minal jannati ci kaw àjjana daana wax ne bu ngeen di ñaan eh, àjjana ñaan leen firdawsi ndax moo gën a kawe ci àjjana yi ca firdawsi moomu ba ca gën a kawe mooy iliyin maanaam jaaroon na fi kon ñaan nga ngoogu allahumma inni as'aluka ad-darajat ad-darajati al-ula min al-janna allahumma inni as'aluka ad-darajati al-ula min al-janna yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma daraja yu kawe ci àjjana ba ci gën a kawe nag mooy jannatul firdawsi illiyin yal na yàlla boole ñu ci tàbbal ñu ñëpp bokk ñu bokk yàlla kon mbokk yi ñaan gaa ngoogu jaaroon na fi ñu ngi ñëw léegi ci leerulu xadis bi xadisul yawm عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أبو داود bokk ñu bokk yàlla jële nañ ci xadis bi nga xam ne abi hurayra moo ko solo nettali ko jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bi nee na laa bu sant allaha yàlla man koo xam ne laa yashkuru du sant annaasa nit ñi hadis bi al imaamu hadis bi abu daawud moo ko solo abu daawud moo ko solo kon mbokk yi yonent bi salaam nee na ku sant nit ñi doo sant yàlla kon danga ci dégg ne kon kat nit ñi jar nañuy sant waaye koy sant mooy ki nga xam ne defal na la njëkk defal na la tranga su la nit ki defalee njëkk wala mu defal la tranga soo ko santul rek da ngaa xalab xalab goog nga xalab nag ñàkk koo sant moo tax suñu borom tabaaraka wa taala boo ko santee du nangu ndax yàlla dafay bëgg waxtu nekk saa su nekk xéewal yi ak may e, sabab bi nga xam ne maanaam fa la ko jaare la mu ñëw ci yow nga bañ a fàtte loola su fekkee yàlla dalaa may may wala mu defal la xéewal waaye am ci kum ko jaarale mu nekk maanaam xijaab nekk yàlla doxale ko sa diggante ak moom ah ndax ah, wax na yàlla moom du jëf du wàcc di jëflanteeg nit ñi waaye eh, day yabal nit ci yow muy jëflante yow nga jàpp ne nit kooku mooy jëflante yow te fekk suñ borom tabaraka wa taala mooy jëflante yow waaye nit kooku kiiraay la ci yow ci yow waaye su fekkee ne yow sa kiiraay dañ na dootoo gis nit kooku waaye yàlla ngay gis ne moom mooy jëflante ak yow moo tax loolu yàlla xamal nañu ko ci alquran fi muy waxee naan baad auzu billahi min sheytan rajim bismillahi rahmani rahim euh, wa ma ramayta iz ramayta walakin allaha rama euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jëlee jàmbaraay ya sànni ko euh, yëfar yi ñii di fattu ñii di daanu di dee ñu naan yonent bi yàlla bi mi ngi rey nit ñi yàlla def ko daf koo dégagé dafa dégagé responsabilité bi yonent bi salaa salaama xamal nit ñi ne yonent bi reyul kenn ndax ndax lu tax xamal nit ñi ne yonent bi sànniwul kenn ndax wa maa ramayta iz ramayta walakin allaha rama ba nga sànnee yow yonent bi sanniwoo waaye man yàlla maa sànni moo tax eh, ba ci wolof bi sax buy saraxe danaan am yàlla jox la te yow Eh, kii nangu sarax bi eh, yow la jàkkaarloo nga ne ko am yàlla jox la ndax ca dëgg dëgg dëgg dëgg kenn nu mënta joxe ku dul yàlla ndax wa anna al quwwata lillahi jamian kattan yëpp suñu borom subhanahu wa taala moo ko moom sa loxo sax bu tàllee mën a sa loxo bu mënee tàlli katt na suñ borom la su mënee banku katt na suñ borom la soo amee lenn looy jox it katt na suñ borom la ci bëgg-bëgg ak nammeelam ak ak ak mu neex ko ndax wa ma tashaa'una illa an yasha allaha rabbul alamin kon nit ki day jàpp ne moom mooy def te fekk maanaam moom euh, defut waaye yàlla mooy def ndax inna xalaxnaakum wa ma taamaluuna inna xalaxnaakum wa ma taamaluuna man maa leen bind bind seeni jëf loolu nag su ko suñ borom tabaraka wa taala waxee euh, ku xel danaan ah kon kat man su nekkee ci lu neexul yàlla yit ah loolu kat yàlla ko bind ci man faaw ma def ko ah, déedéet nag ndax kullun yaamalu kullun yaamalu ala shakilatihi ku ci nekk fi la yàlla tracer ak li yàlla att ci yow ak li yàlla dogal ci yow maanaam loolee rek moom ngay nekke ba kera nga di fi jóge waaye lépp nag ci kat na suñ borom la ak coobaree suñ borom ak nammeel ak suñ borom tabaraka wa taala ginnaaw yow du la neex yàlla lay neex du la soob yàlla lay soob amoo genn kattan la hawla wala quwwata illa billahi alil azim amoo kattan amoo menn pexe ci def dara amoo benn kattan ci bàyyi dara illa illa billah ci lu dul suñu borom tabaraka wa taala kon ca dëgg-dëgg axiixiyan ca dëgg-dëgg yàlla suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo fi nekk di def li muy def ci mbaaxam ak kattanam ci dooleem ci léppam moom suñu borom tabaraka wa taala euh, yooyu nag ay sew-sew yu xaw doy waar la ay wax la yoo xam ne neexut a dégg ndax ni ma koy waxee rek wax picc yi moom picc yi rek ko mën a dégg ki gàtt xel nag su ma dee diglu wala ki xamul xàmmeewut man na wax ne ah kon kat man ndekete yëf yi duma ci dara dëgg la sax doo ci dara de doo ci dara lépp yàlla la waaye nag macha woo faal wa ma lam yasa lam yekku ni lu neex yàlla loolu lay def lu neex suñ borom euh, du def loole hmm, moom suñ borom tabaraka wa taala wa ma tashauna illa an yasha allah rabbul alamin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom dégager responsabilité moom indi responsabilité am teg daan ne wa maa ramayta iz ramayta walakin allaha rama yonent bi ba mu sànnee maanaam sànniwut waaye yàlla moo sànn te dëgg dëgg dëgg bu yàlla ne yonent bi sànniwut rek yonent bi sànniwut kon ko sànni yàlla moo sanni moom suñ borom tabaraka wa taala suñ demee ba tey ca bay eh, ca bay on maanaam ca bay on ca jaayante ba eh, ba muy jaayante suñ borom dafa wax na ko daf koo wax na ko innama yubaayi'uuna allah yadullahi fawqa aydihim fa man nakasa fa innama yankasu ala nafsihi ngoog e, ñii di jaayante yow day jaayante yow waaye yàlla la ñuy jaayanteel ndax yadullahi fawqa aydihim loxob suñ borom tabaraka wa taala mu ngi ci seen kaw loxo yi allahu akbar bokk ñu bokk yàlla moo tax bokk ñu bokk yàlla e, jaam bi xam rek moo lay musal xam-xamee rek moo lay musal waaye soo xamul xàmmee rek toujours ci lëndam ngay nekk goo xam ne maanaam bët euh, setagut moo tax euh, nit ki lépp lu muy jëf ak lépp lu muy wax du ci gis lenn du ci gis kenn ku du jëmi suñ borom tabaraka wa taala ki ngay jëflante it bu ci gis bu ko gis bu ko xool mosu yoon nekk ci moom yow xoolal suñ borom bàyyil xel suñ borom tabaraka wa nga jàpp ne man kat yàlla laay jëflanteel kon kii su ma ko woree wala su ma jëflantee moom lu dul noonu rek moom waruma ko waaye yàlla sama borom tabaraka wa taala laa wor waaye yàlla laa jëflanteel jëflante bu ñaaw képp koo xam ne noonu nga jàppe mbindeef yi duutoo lor mbindeef ci kaw suuf waaye duutoo wor mbindeef ci kaw suuf waaye duutoo triya mbindeef ci kaw suuf koo gis jàpp ne kii kat wax ji may wax ak moom waxuma ak moom waaye yàlla laay waxal kii kat jëf ji may jëfante moom jëflante wu moom waaye yàlla laay jëflanteel nga di ko nga xame ko noonu nga dunde ko noonu yége ko noonu xàmmee ko noonu kon ci dëgg dëgg dëgg kooku noonu duutu mën a lor waxuma la waxuma la nit sax waaye amul lenn loo xamante ne bi lu xam ruu la wala amul sax loo xam ne sax amul ruu sax maanaam du ko lor ci loo xamante ne bi maanaam euh, ci teyu bakkanam euh, lay doon ndax day jàpp lu mu gis rek da ciy jàpp da ciy gis maanaam jëmmi suñ borom ji tabaraka wa taala jëflante gu muy jëflante it da ci gis ne moom yàlla lay jëflanteel wa raaci fi kulli xalqin xaqa man gis nga ko wa raaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa mbindeef moo gis da ngaa war a sàmm maanaam xaqi yàlla ji ci moom nga xam ne mi ngi ci moom nga xam ne xaqi yàlla jooju mi ngi ci biir mbindeef mi bu ñu waxee xaq yàlla nag ñi xam-xam lan mooy xaqu xam nañ ko xaqu googu nga xam ne nag mi ngi ci biir mbindeef mi nga xam ne moom mbindeef mi bu yëkkateeb loxoom moo tax bu xoolee moo tax bu gisee moo tax lu mën di doon moo tax ndax nit ki bis feeg mu ngi dund soo ko wooxee mu dula wuyu soo nee ma Abdul Ahad dama lay dégg soo ne ma Abdul Ahad damay dégg wuyu di gis di jëf waaye bis bu nee guddi na naan Abdul Ahad faatu na soo ma wooyee duutuma dégg soo soo tàllalee sa loxo euh, soo ma laalee duma ko yëg loo man di def ci man duutuma ko yëg amatuma benn yëg-yëg ci yow lu ko waral la daa dund ci Abdul Ahad loolee dem na bàyyi fa Abdul Ahad kon lu fi des xottu wi rek fi des moo tax ñu di ko jël di ko gas di ko suul bokk ñu bokk yàlla moo tax mbindeef mi il faut nga def itte ci jiima àgg ci yenn dimension yi il faut nga def it ci jiima xam yenn dimension yi moo la ci moo la ci eh, dimbale mooy tax yow duutoo wax kenn lu ñaaw duutoo def kenn lu lu ñaaw duutoo ci duutoo lor kenn du ci wax du ci jëf waaye ñëpp da leen di yéene jàmm ñëpp da ngay fexe ci ñoom jàmm ñëpp da ngay def ci ñoom jàmm ndax lan yow daal jàppeetoo sax mbindeef yi ay mbindeef waaye da leen di jàpp rek jëmmi suñu borom yi tabaraka wa taala mi nga xam ne moom rek moo daj fépp nekk fépp ndax lan fa ay numaatu walu fa samma wàccu la fu ngeen mën di jëm rek eh, jëm mi suñu borom tabaraka wa taala ji maanaam mi ngi nekk yow mi ngi jàkkaarloo yow woo maa ko ay numaa yàlla nee na fu ngeen nekk maa ngi ànd yéen soo gëmee ne nag yàlla mi ngi nekk yow mi ngi ànd yam waaye keneen nit yàlla mi ngi nekk moom mi ngi ànd moom waaye war war ngaa rus sa bopp waaye war ngaa rus kooku eh, war ngaa rus yàlla ca jëmm jooje waaye war ngaa rus yàlla ci sa jëmm ji ba doo wax lu bon doo ko def waaye war ngaa rus eh, yàlla ci jeneen jëmm ba doo wax ci moom lu ñaaw doo def ci moom lu ñaaw waaye ku am gis-gis boobu rek du tolloor kenn bokk ñu bokk yàlla yàlla nañu yàlla may gis-gis boobu ñu amee ko bokk ñu bokk yàlla suñu borom subhanahu wa taala wax na ci alquran baax da auzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim wa istahazzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi la shadid ca suratul ibrahim soo demee ca suratul ibrahim danga nga fa fekk suñu borom subhanahu wa taala ja wax ci yàlla de mi ngi leen di xamal yàlla de jox na leen ab ab ab dëhël yàlla dig na leen nee na wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum yàlla nee na su ngeen santee rek ma dolli leen yàlla nee na su ngeen santee rek ma dolli leen kon nit ki fu mu toll dafa war di sant suñu borom tabaaraka wa taala ndax mboolem xeeti cant yi nga xam ne ñeent la yëpp ak aji sax la ñeel suñu borom tabaaraka wa taala indi woon naa détail cant gi nga xam ne yàlla moo ko sant jaamam bi na ni'mal abdu innahu awaab ak cant gi nga xam ne yàlla moo ko sant maanaam boppam ne alhamdulilah ak cant gi nga xam ne jaam bi moo ko sant moroomam hmm, ak cant gi nga xam ne eh, maanaam eh, jaam moo ko sant suñu borom. ci wax alhamdulilahi rabbil alamin nga xam ne ñeenti xeeti sant yooyu yëpp lépp dafay delluwaat ñeel suñ borom tabaraka wa kon jaam bi ci am jaam bi amu ci dara waaye moom sabab la kiiraay la ci maanaam suñ borom tabaraka wa taala doxale sa diggante ak moom moo tax nag soo ko santut yàlla du nangu nga sant ko soo tëbee tëb rek sant yàlla direct yàlla du koy rejeté du ko du ko nangu moo tax mu ne fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis xéewal yi nga xam ne suñ borom tabaraka wa taala da da da da da la ko da la ko xéewale maanaam dee ci sant suñ borom tabaraka wa taala eh, dee ko nettali ndax nettali xéewal dafa bokk ci yi nga xam ne sant yàlla la bokk waaw bañ koo def nag dafa bokk ci weddi suñ borom tabaraka wa taala moo tax bu la yàlla dafa lay xéewal na ko nettali na nga wax ne yàlla defal na ma nangam ak nangam eh, ngir lan ngir sant ko suñ borom tabaraka wa taala waaye na patti pattiral lépp lu la yàlla dogal rek nga ne patt patteer a jàpp na yow danga ko koo yeyoo moo tax wala lépp lu leen nit defal nga ne patt patteer a jàpp ne da nga koo yeyoo ba ba ba sax iñaan nga koo sant wala kiñaan jàpp la sax ba doo ko sant loolu nit ku baax du ko def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hadiis uh, abi urayra mu wax ne laa yuskurullaha man laa yuskuru nasa ku santu uh, nit ñi doo sant suñ borom tabaraka ko taala mu ngoog ca yàlla nee na la in zakartum la azidannakum wa istaazana rabbukum la in zak la in shakartum la wala in kafartum in azabi la shadid ca suratu ibrahim bokk ñu bokk yàlla kon bokk yi mu nga noonu euh, bis bangoog ñaan gaangoog xadis bangoog ki ko doon leer seen soppale ci yàlla ñi ngi ñëw léegi ci suñu waxtaanu gàmm euh, bokk ñu bokk yàlla tey suñu waxtaanu gàmm euh, ñi ngi woon ak yéen ci nabiyu rahma nabiyul huda eh, ñi ngi woon ak yéen ci yonente yërmandi boobu ñi ngi woon yéen ci yonente bu jub boobu yonenteem jub bi nga xam ne ku jub rek ci njubam gi nga amee njub ndax moom yonente sallallahu alayhi wasallam mooy siraatum mustaqim siraatul mustaqim dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg buñ koy wax mooy muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yonent bi mooy siraatul mustaqim mooy yoon wi nga xam ne moo ne caw jub amul benn dëng-dëng ba àgg ci suñ borom tabaraka wa taala moo tax soo ko wonee ginnaaw bëgg dem ci suñ borom doo dem ci suñ borom tabaraka tabaraka wa taala doo fa mën a dem ndax yonent bi mooy baabu lahi moom la ko euh, euh, Muhammadul Busayri wa anta baabullahi ay umrihin euh, waafaaka li xayrika laa yudxul yow yaay buntab yàlla bi képp koo xam ne bëgg naa dem ci yàlla ba noppi bala fi kooku du dugg kon yonent bi mooy baabullahi mooy buntab suñ borom tabaraka wa taala kooku na nga xam ne moom la weeram ñëw ñu nekk nii ci ay weeram nekk nekk nii ci bisi weeram nekk nii ci guddi weeram nga xam ne guddi yi guddi yu rëy la guddi yi nangu ñaan la guddi yoo xam ne képp ku koy dundal képp ku ci ñaan képp ku ciy def lu baax suñu borom tabaraka wa taala dana la euh, fay yooyu yëpp danañ danañ ci ñëw képp ku ci dundale wala képp ku ci jox sa alal wala képp ku ci def lu baax lan nga ci amee yooyu yëpp danañ ci ñëw incha allah balaa gàmmu gee jeex kon tey bokk ñu bokk yàlla liñ leen indil tey tey eh, askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ leen di indil askanu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi maanaam moom leen leen indil incha allah ci kàttanug suñ boroom tabaraka wa taala إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وقلقا وقد ورد شرف نسبه صلى الله عليه وسلم أحاديث صحاح منها ما روي منها ما روى مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل استفى من ولد إبراهيم إسماعيل واستفى من بني إسماعيل كنانة واستفى من كنانة قريشا واستفى من قريش بني هاشم واستفاني من بني هاشم بوكني بوك يلا بوكني بوك يلا Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën a tedd ci mboolem mbindéef yi moo ci gën a tedd ndax yàlla moo ñu ko xamal wa innaka la ala xuluqin aim lu ma bind yaa ci gën a kaw jikkoo yaa ci gën moo gën a tedd ñëpp nag askan noonu ma gën a nit ñi noonu la leen gënee maanaam askan ashrafu naasi nasaban moo gën a tedd nit ñi ci askan wa akmalahum xalxan moo leen gën a mat bind wa xulaxan ak jikko yonent bi moo gën a tedd askan moo gën a mat bind waaye moo gën a mat eh, jikko moo tax eh, rot na eh, ci ay xadis yu bëri yu fasantikoo yoo xamante ni bii dañuy wax maanaam ci askan yonent bi sallallahu alayhi wa suñ demee ci hadis boo xam ne al muslim moo ko soloo moom nee na a nabiya solo alayhi wa sallam nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna allaha naka yàlla azza wa yàlla mu tedd ta màgg mii day astafa tànn na min waladi ibrahim ci doomi ibrahim ismail ismail maanaam e, yonent bi moo ne moo wax ci hadis boo xam ne al imaamu muslim moo ko solo moo wax ne yàlla dafa tànn ci doomi ibrahima yi ismail mboolem doomi ibrahim yi soo leen dajalee yàlla ismail la ca tànn ba mu waxee loolu moom bi mu ne wastafa min banni ismaila eh, kinaanata yàlla tànn ci doomi ismail yooyu eh, giir gu ñuy wax kinaanata wastafa min kinaanata yàlla tànn ca kinaanata giir gu ñuy wax xurayshan waaye wastafa min qurayshin yàlla tànn ci giir gu ñuy wax qurayshin banni hashim giir gu ñuy wax banni hashim waaye wastafa nii yàlla daal may tànn nag man yónni sallallahu alayhi wa sallam min banni hashim allahu akbar bokk ñu bokk yàlla moo tax yónni bi sallallahu alayhi wa sallam ashrafu naasi nasaban moo gën a tedd nit ñi maanaam askan moo tax yàlla dañu eh, lam lam lam yazal fi damaa'iri al-kawni eh, eh, lak tuxtaarul ummahaatu wal abaahu maanaam yonent yàlla musul dañ ci biir mbindeef yi di tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ay ndey ak i baay mu di leen tànn ci di ko tànn ci jigéen ñi di ko tànn ci góor ñi di ko tànn ci jigéen ñi di ko tànn ci góor ñi ba keroog maanaam suñ maam Ibrahima ñëw mu tànn ci Ismaïl ba di tànn di tànn ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est ci Abdullahi mu daal di génn ca loolu lépp incha allah dina feeñ incha allah ci kàttanu suñ borom. bokk ñu bokk yàlla waxad zakara al imaamu buxaari yu rahimahullah nasabu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal abul qasim muhammad bun abdillah bun abdilmutalib bun hashim bun abdulmanaaf bun xusay bun kilaab bun murata bun kaab bun luway bun gaalib bun fihri bun malik bun bunin nidar bun kinaanata bun xuzaymata bun mudrikata bun ilyas bun modar bun nizar bun maat bun adnan wa adnan min waladi ismail alayhi salaam bokk ñu bokk yàlla bokk ñu bokk yàlla waxat zakara al imaamu al buxaari yu imaamu eh, al buxaari yu tudd na nettali Eh, askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rahimahullah yal na yàlla gërëm suñu imam boobu al imam Buxaari yu nettali na askanu yonent bi mu ne moom day mooy abul qasim mooy bàyyi xaasim muhammad bun abdillah muhammad mi nga xam ne abdullahi moo ko jur mi abdul muttalib a ko jur abdul muttalib mi haashim a ko jur tuddut Abdul Muttalib waaye Shaybatul Hamdi la tudd mu Muttalib mii moo ko jëli woon moo ko jëli woon ba ko jëlee bañ araab yi xàmmee ko di ko sàkkal pexe ba ba ñëwee kun ko laaj na ko kii kan la ndax leer gi ak rafetaay bi mun leen kii sama jaam la kii sama jaam la nëbb ko maanaam nëbb ko ba arab yi duñ ko fexeel ndax boobu moom leer yonent bi sallallahu alayhi ci moom la nekkoon ci maamam boobu ndax wax nan la leer yonent bi eh, dañ ko doon tànn ci ay maam ak i baayam ndeyam ba ni mu moo tax abdu eh, abdul eh, mutalib mii ban ko laajee na ko kii kan la mu ne kii abdul mutalib la kii day jaamam mutalib la maanaam sama jaam la moo tax ñu di ko wooyee abdul mutalib waaye moom shayba la tudd shaybatul hamdi lañ ko doy wax lu tax ñu tudd ko ba mu nekk ba mu nekkee xale karaw gi dafa bu jaawoon dafa am bi jaaw ñu tudd ko Shaybatul Hamdi bi jaaw bu sant bi mu ngoog moo tax moom eh, Abdullahi mi bun Abdul Muttalib Abdul Muttalib bun Hashim Hashim ko Hashim bun Abdul Manaaf Abdul Manaaf ko jum Abdul Kilaab Kilaab Murata Murata Kaab Kaab Luhay Luhayl Ghalib Ghalib Fihr Fihr Malik eh, Malik Nadara ko nara moo jur eh, nara kinaanata kinaanata xuzaymata xuzaymata mudrikata mudrikata Ilyas eh, ak eh, mudar mudar nizar nizar maat maat adnaan sooy lim nag maami yonent bi sallallahu alayhi wa ba egsi fii ci adnaan dañoo bëgg nga taxaw fi ndax nee na li tàmbalee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci adnaan maanaam xilaaf amu ci wuute amu ci ñëpp ci d'accord ne loolu moom lu wér la kenn du ci wuute ñii ay maamam lañ ba ci adnaan moo tax Seyd El Hadj Malick Sy radiallahu taala anu nee na wa man jaawaza adnaana fa takzibuhu xadin jala képp koo xam ne da ngay lim maam yi yontu saa salama maanaam ba ba bëgg a passé kookat boo muy tuut dana wax la ca ginnaaw maanaam loola la ca ginnaaw loola dana feeñ ci moom moo tax dañoo bëgg sooy lim maam yont bi ba egsi ci adnaan nga yem foofu moo tax nag wa adnaan min waladi ismail adnaan mii nag mi ngi bokk ci doomi ismail adnaan ci doomi ismail la bokk waaye nag li dale ci ismail ba ca suñ maam aadama alayhi salaam am na ñu ciy jéem a indi ay wax ñoo xam ne dañ koy topp ba ci suñ maam aadama waaye li gën a wér daal mooy topp ko ba ci adnaan maanaam nga yem foofu loolu daal moom euh, la borom xam-xam yi maanaam euh, wax bokk bokk yàlla moo tax gis nga maam yu yonent yi mooy maam yu tedd yu sell yi da ngay wax muhammad bun abdillah bun abdul mutalib bun hashim bun abdul manaaf bun qusay bun kilaab bun murata bun kaab bun luhay bun ghalib bun fihri bun malik bun nidar bun kinaanata bun xuzaymata bun mudrikata bun ilyaas bun mudaar bun nizaar bun maat mm, bun adnaan Eh, wa addanaan min waladi ismail alayhi salaam bokk ñu bokk yàlla kon bokk yi lii mooy maam yi yonent wi sallallahu alayhi wa nekk ay ñu sell mboolem maam yi kenn koo ci xam ne mas naa mooy yàlla ci njaaloo amut ñoom ñëpp ñu sell lañ mosu ñoo mooy suñu borom tabaraka wa moom la yàlla tànnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk xiyaarun min xiyaarin min xiyaarin nekk tànneef ci kaw tànneef ci kaw tànneef moom yonent bi sallallahu wa sallam moo tax moom amul te ku moom da am mukk moom yonent bi eh, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi eh, daana wax ne ana daawatu abi ibrahim man maay sama ñaanuk sama baay Ibrahim sama baay Ibrahim ñaanam googe mu ñaanoon man maay ñaan nga ndax Ibrahim dafa waxoon ne rabbi habli min as-saalihiina ndax yàlla yàlla nga may ñu baax ku baax ku yiiw min as-saalihiin nee na nag yondu saa salaam nee na eh, man ana daawatu abi Ibrahim man maay ñaanuk sama baay Ibrahim waaye waa busra Isa man it maay mbégteem Seydina Isa ma Isa ma nga xam ne moo bëggaloon ay nitam ci na leen yaati min ba'di ismu Ahmadu moo bëggaloon ay nitam na leen bis dana ñëw dana am ko feeñ maa ngi leen ciy bëggal kooka kan la kooka Ahmad lay tudd moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne wa bushra Isa man maay bëgg bëggleem Seydina Isa ma Seydina Isa alayhi salaam nee na ba tey yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na waraat ummi annahu xaraja minha nuurun adaat minhu shaam nee na am na benn bis waraat gis na ummi sama yaay annahu naka moom xaraja génn na minha tukkee ci moom bàyyikoo ci moom nuurun ak leer goo xam ne adaat maanaam leeral na minhu ci moom leer googu xusuuru shaam mbooleem gàngunaay saam yi mbooleem pale yi saam yi maanaam Euh, leer googu maanaam amul benn kër ci kër yi amul benn pale ci pale yi amul benn gàngunaay ci gàngunaay yi amul benn kër ci fu mën di doon rek leer googu dugg na fa ba leeral ko allahu akbar bokk ñu bokk yàlla moo tax ngeen xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam kenn moom euh, yàlla wane na ko njëkk muy ñëw yàlla waxe na ko njëkk muy ñëw soo demee ci tawraat da nga fa fekk nga dem ci injil fekk ko fa nga dem ci saboor fekk ko fa bokk ñu bokk yàlla bi nga xamee ne leer gi euh, war naa ñëw ci suñu maam Amina te fekk booba Abdullahi mii nga xam ne mooy baayam nekk ndaw toll ci diggu dooleem jigéen ñi euh, di ko biiw ni ay weñ di ko wër fu nekk rek ñu fekk fa sonal ko ñii naan ko kaay ma jox la téeméeri giléem ànd ak yow ñii naan ko kaay ma jox la nangam ànd ak yow di ko sàkk guddi di ko sàkk bëccëg ba mu demee ba loolu sonal ko nag ci la wax baayam moom Abdul Muttalib ci la wax baayam Abdul Muttalib ne ko man daal jigéen ñi sonal nañ ma dama bëgg léegi nga wutal ma euh, euh, soxna ci la bàyyi Abdul Mutalib dem ci ay bokkam seet fa euh, ba wutal ko soxna su tedd soosu su baax su yiw su sell soosu ñu koy wax suñu maam Aminatu bintu Wahbin Amina moom nga xam ne mooy bintu wax Wahbin di doomi wax bu suñu ñu ñu ñu dencal ko eh, suñu maam Abdullah eh, mu denc suñu maam Amina eh, ci noonu nag la leer gi jóge ci Abdullah dem ci suñu yaay Amina mam la ba tey ku tedd kooku suñu maam bu baax boobu Seyd El Hadj si di wax naan laylal urobati xalla durru fi rajabin sumal munaadi munaadi muzhimal fahmi allahu akbar laylalu rawbati xallat durru fi rajabin sumal munaadi munaadi mushimal fahmi nee na guddik ajuma ci la leer ga toxoo ci abdallah dem ci suñu maam euh, euh, aminatu bintu waxbin bokk ñu bokk yàlla bokk ñu yàlla kon kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dañuy bañ yëf bu ko defee audio yi bu bëree rek nit ñi duñ ko mën a teewlu waaye teg leen foofu seen baaroom incha allah ba suba ñu ñëw nag dugg ak yéen ci ganeseeg adduna yonente sallallahu alayhi wasallam eh, ya ci xewoon nag ya aji woon nag yëpp ak bi nga xamee ne nekk na ci biiru waajurama la waajuram daa gis ak ñu ko daa dikkal ñëpp incha allah bu subaa dañ ci dikk ak yéen ba kere yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gane si adduna ba kere yonent bi nekk xale eh, bi nekk ku dëgër ba kër yonent bi nekk waxambaane di tukki di dem di ñëw di jaaye di ñëw ak ba muy sàmm ak yëpp ba kër bi sallallahu alayhi wa sallam eh, di denc soxna ba kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, maanaam jibril di ko dikkal ci xaaro Ibrahim ak la ca aju ba keroog yonent bi sallallahu alayhi wa nekk Màkka ak la ca aju ba kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaaye Màkka dem Madina ba kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk Madina ak nam fa nekk woon ak ya ca ajoog ya cay xew ba kër yonent bi sallallahu alayhi wa feebar ba kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, wujji suñ borom tabaraka wa taala ca rafiqul ala bëgg nañ incha allah balaa gàmmu ga xam naa du fi xaj waaye nag danañ ko jéem a tënk di tënk di tënk rek ba balay booba ñu àgg yéen foofu incha allah eh, kon teg leen foofu seen baaroom ba suba ci waxtu yi ci heure bi ki doon leeral eh, dafa yéen waxtaan bi seen soppali ci yàlla Abdul Ahad aqulu qawli haza wa astaghfirullahu li wa lakum wa saa'iril muminin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay tigil kese si di baram